PDS ñu dem benn euh, kii ci Pape Alé Niang libéré Pape Alé ñu jàppale. ñu jàppale libéré Pape Alé. jàppale deux mois tëj kaso loolu du politique c'est-à-dire que dafa am ay ay droit yoo xam ne élémentaire yoo xam nit dañ ko war a manifester wax wax sa xalaat wax sa xalaat ci politique ak ci politicien loolu liberté d'expression voilà jusque de niveau politique. waaw donc le bu la ci jappé rek. jaay nañ la doole xañ nañ la sa ak ak sa yeleef. Euh, piéti nañ piéti nañ sa liberté d'expression. te loolu warul ci réew moo tax Sénégal dégringolé. Mm-hmm. évidemment de xaw ma ñaata place 31 places. Mm-hmm. évidemment dans le classement mondial mais Sénégal fi mu toll ci walu mm-hmm. démocratie. bu ñu demee ba ci benn manifestation ñu jàpp presque 500 personnes juróomi téeméeri ñu dugal leen kaso nga xam ne Sénégal y a problème teg loxo fanweeri nit ñeen fukki nit da doon nekk problème Sénégal. Mhm. ñun ñu nekk ci presse bi dañ doon wax 40 personnes lañu ñu jàpp da doon ngand ci ñun. Mhm. mais Sénégal léegi yegg léegi ci ñuy jàpp 500 personnes. Mhm. ci une seule manifestation te jurul coow. mais mais mais mais loolu passé na détenu politique. loolu loolu musta am ci histoire Sénégal. jàpp nit ki ci lu mu posté yow déjà da nga koy du yow yaa dem ci page am.

kañ la Sénégal dellu gannaaw ba amoo sañ-sañ joxe sa xalaat. ci ni police wala gendarmerie doxe te nga am sañ-sañ joxe sa xalaat ci gestion Macky Sall mi leen jiite ñoom. jaay doole gi. ak arrêté bi ñu arrêté nit ni ci couloir yi. benn coup téléphone booy dugal ko waaye ooy ñuuf. loolu moo war a Sénégal. motax toujours damay demander Birahim xam na ne yàgg ko demander stage magistrat kasso da cee war a

ay wuñ ko manifestation de dañ ne ko yoon bii ngay jaar ñu génn aw yoon bii jaa jaawale itinéraire kese mais loolu du ñu ko dénoncé est-ce que mën nañu fexe ba du ñu ko dénoncé ci réew bu am démocratie te ñoom ñu fal leen démocratiquement ñoom ay carte lañ leen falee mënuñoo fexe ba la ñu doon xeex ñoom bi ñu nekkee ci opposition bi muy li du Mbodj di wax sànq. M23 bi ñu koy sos te ñoom ñu bokkoon ci ñu ko doon xeex.

ngeen dolel suñu institution suñu institution nga loi tax ba bu loi wala ba ñu loi euh, est-ce que une tamit yeen de ci sen rôle euh, ñoñu nga xay ñam ñoy yoré loi yi euh, magistrat yi ko appliquer mm-hmm. tamit ñu sauvegarder magistrat parce que du une bon peut-être ben wala ñaar ça c'est valable dans toute corporation euh, force de défense et de sécurité est-ce que yéen bokkul tamit ci seen rôle ngeen sauvegarder ces institutions là parce que loolu mooy indi tamit démocratie bu gën a ñoŋ ci réew yu mel ni Sénégal. Wa xam nga bu fekkoon ne euh, waxtaan bi dafa dafa sori ci biir euh, société bi. Mhm. dañu àgg fo xam ne loolu dañu ko réglé. parce que c'est vrai que ñun suñu biir sax bu ñuy samp affaire bi dañu toog ci kanam ñun kat li ñu def bu fekkee ne dañu bàyyi benen président ñëwaat def li fi Macky def wala Ablaye def dafa complètement mhm. donc il faut que suñu suñu waxtaan ñu ko ñu ko mais pour le moment parce que dañu nekk ci dañu fondation dañu nañ ko dox ba mu ba mhm. ko ba bu ñu ba ba ba ne ah ñun ñi kat war nañu créer type de de en tout cas décision mhm. yo xamné ne day réew mi parce que institution yi bu fekkee ne solide rek mhm. bon dara dox ci réew mi parce que loolu mo indi won d'ailleurs comme ni ma xé biñu paré ñu paree M23 ñu deful yóbbal mhm. bi Macky Sall ñëwee jëm na matérialiser parce que jox na def na CNRI donc bu féké né CNRI bobu def nañ conclusion yi ni mu waré defe naa ne bu Sénégal dina avancer bu baax a baax baax d'ailleurs ba léegi sax conclusion yi defe naa bu ñu ko xoolaatoon rek euh, kii ko am ay policiers yu am fit defe naa du fit. mais voilà il faut sincérité. am fit ak gëm yalla quoi parce que. am ngeen tek assise nationale. waaw assise yooyu voilà loolu rek bu ñu ko jëloon rek. applique ko rek Sénégal da jëm kanam parce que suñu faiblesse moy institution yi. parce que bu fekkee ne euh, da nga nek ci réew nekk fa président institution yëpp pouvoir ñetti pouvoir yëpp nga am ci nga accaparé wu mhm. mais fofu dictature la lolu moy dictature dictature moderne moy nga accaparé wu trois pouvoirs boko accaparer accaparé da ngay da ngay dem sa bopp ba teg sa bopp yàlla te defe naa ne mën a njaagakat ne loolu sax moy japp Macky Sall parce que li ngeen di wax ni euh manam euh, dérive dictatoriale yi dañ moko indi mais presque mon nañu yaakaar mon mën nañu njort troisième mandat moko indi parce que bo bëggé ag troisième mandat forcément da nga il faut utiliser tous les moyens parmi ces moyens là

le loolu mooy fondement c'est-à-dire que euh, depuis presque 18e siècle loolu la maintenant c'est le pouvoir qui est le pouvoir nous né pour que pouvoir dëgër il faut que pouvoir yi am séparation Vous avez séparation ku nekk am seen de laay boo xam ne kii du mën a empiété ci kële lépp Le amu fi parce que si mu nekk ni bon le pouvoir moo fi pratiquement le pouvoir exécutif moo mooy jaxasee pouvoir législatif bi amul amul benn truc pouvoir judiciaire bi am poids bo xam ne lu leen neex ñu def japp ne ci kat bi moy magistrat fa bon lu moy yëpp la lañu teunk mais ñu ci teunk xam fu ñu tek ba nga bu ñu fa teunké presque teunk na ñepp parce que ñoy ñoo am ñoy dogal dogal yi gëna am solo donc li nga wax effectivement euh, il faut que ñu taxaw ci parce que pour que réew mi jëm kanam démocratie bi gëna dëgël il faut que séparation pouvoir bobu taxaw il faut que institution yi am force bo xam du kenn mo ñëw diko ko wax itam ci euh, M24 ak euh, ñi ci bokk nga xam ni démb doon nañ amal ñoom tamit ab ndaje waxtaan bi nga xam ni euh, njiitu réew mi woote na